voilà euh, Chérif Samb ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. jërëjëf maa ngi leen sant euh, di rafetlu invitation bi ci seen antenne bi nga xam ni nuyu seen auditeurs yëpp. yow ngay coordonnateur cellule euh, communication intersyndicale liggéeykatu pêche maanaam de mhm. pêches ñu dégg leen jamono ji ngeen di yëglu lu ko waral. waaw dëgg la dañuy yëglu du njëlbeen ci ñun. Mhm. parce que at yi weesu defoon nañ ko fi. Euh, ñu jub élection présidentielle ñu tegandi yëf yi ci suuf parce que dañ doon ba ci biir ñu gis ne xëy na ñun ay politiciens ñoo newoon suñu ginnaaw. Mm-hmm. te yàlla xam na ne noonu politique nu syndicat lan boo xam ne taxawu saytu yi tamit euh, jëmmal euh, lu defar anamu liggéeyukaayu suñu mm-hmm. suñu suñu ñoñ. Mm-hmm. waaw loolu la yëngu tam li ko waral lenn la. dañoo toog tey ami jafe-jafe ñu daan ko wax nag kenn déggunu ba tey nañu ne kon nañ ko la labaliwaat ñu mën mën nu dégg. suñu toxu jam ñaajo gi fii. Mm-hmm. dafa ànd ak jafe-jafe yu parce que njëlbeen ga dañ daan toog di ñu andi ak ay bus. Mm-hmm. Euh, ñu dem ba si yàgg bi jàngalekat yi waree ñibbi ci mois de septembre deux mille vingt seen bërëbu jàngalekaay. Mm-hmm. ñu jël bus yi yóbbu ko waaye keroog la bus géej a ñëw ñu yóbbu ñun. Euh, te sunu naataangoo ñu dool fii yeneen ministères yi ñoom ñu ngi yóbbu seen i ñoon di leen andi ñu nekkoon loolu dafa tax ba xëy na ñenn ñi bu ñu bëggee xëy si jam ñaajo duñ ko mën. donc anamu liggéey bi dafa métti. fii jam ñaajo tamit suñu naataw nga xam ne ay chauffeur lañu bu ñëwee ba wàccee nit ñi maanaam sóoruñu leen fenn fu ñuy mën a toog dal wi tamit nga xam ni seen makaan la eh, ba ñu mën toog dañuy toog dugg salle de réunion yéen yenn salle de bu ñu duggee ñu dàq leen hmm. eh, ñu nekkoon loolu du anam bu gën parce que man bu dee am na chauffeur bu may jël ci fajar andim na war na mën a am fu mu dalu bongoon mën ma delloo si jàmm hmm. waaw loolu jafe-jafe la ci du ci wàllu makkaanu liggéeykaay boo demee ci dëkku gox goxaat yi hmm. am nañ gox yoo xam ne wax dëgg yàlla bëri bi ñuy liggéey euh, bâtiment yi na yàgg goo xam ni vraiment newal ci anam ba gën euh, rax ci dolli tamit sunuy naataangoo yi fa nekk ñu nekk inspecteur départemental ñenn ñi buñ taxawal ne dañuy démission seen i ñooñu taxaway la oto ñooñu amuñ sax welo bu ñu war pour dem saytu seen liggéey ci biir ci biir dëkk yi ñaare da ngay soit da ngay loué Jakarta sa koppar lay jóge mhm. nga nga koy def ah, donc ba tax na loolu itam ñu nekkoon loo xam ne mën na ko jubbanti te taxaw ci li mu gën a gaaw mhm. ah, bu fekkee da ngay jël loo xam wàlli payoor daal di taxaw euh, ci payoor itam am nañ ci jafe-jafe bu mag mhm. ndax am liggéey ba nuy def am na ñoo xam ñu ngi def lu méroog moom tey ñun dañuy jàpp nit teg ko ci yoon gendarme nga mhm. teg la alamaan nga fay magistrat nga am fu ñuy yeete di yee di yee ñoon ci wàllu mool ci wàllu euh, soppikatu jën ci anam yi gën a mhm. maanaam kon dañuy jàngale ah, ñu dem ba ci biir tey di saytu géej dem ba biir géej di saytu di sàmm suñu suñu géej ñu mel ni ab militaire u marine Euh, nga defee ni loolee buñ ko defee yëpp ba mu tegu ñooñu am lu ñu am ci yelleef ci wàllu liggéey bi ñun amuñu ko day daal doy war loolu bokk na ci li gën a tax suñu euh, yëngu bi xëy na yéen ci kanam boo laajtee ma jox la. d'accord yooyu lee donc ngeen tënk ci seen plateforme revendicative ñu bëggoon a xam ñaata ponk ñoo ci nekk. ah ponk yi juróom-benn lañ ko tënkee comme ni ma ko waxee nii ci anam bi ni wàllu euh, liggéeyukaay maanaam condition yu liggéey mm-hmm. benn bi mu dem ci wàllu tàggatu bi maanaam formation bi. Mm. parce que togoon nañ fay jamono dañ daan toog xëy na xàll ñenn ñi ñu defal leen concours ñu mën dem passé jéggi garat dem ci beneen garat ñenn ñu defal leen euh, euh, yoon bu leen tax ñu mën dem jàngi université. Mhm. mais yooyu dafa dàq tey. donc kon loolu mu di jafe-jafe te ci wàllu formation ba tey ah liggéey boo gisee ñun ñu toog ba naan ñu ngi liggéey guddeeg bëccëg parce que dañoo bariwul suñu lim dafa néew. te recrutement yi assemblée de fonction publique euh, liñ ñu ciy jox ci quota dafa néew lool. Mhm. ñu nekkoon suñuy rakk ak suñu yi nga xam ñu ngi ci l'école yi ñii pare nañ Euh, nañ leen recruter ndax ñu mën a yombal ñun jëmbal ñu ci liggéey bi euh, foofu tamit ci wàllu formation comme ni ma ko waxee mm-hmm. euh, dañ dem ba ci biir mu àndi lan ci wàllu payoor yi buñ demee ba doon ingénieur mm-hmm. am na ingénieur ya nga xam ni lañ leen di jox ci ndente responsabilité particulière fukki junni la ak ñeent mu am ñoo xam ni ñoom fanweeri junni ak juróom benn la ñuy am ñoo xam ni kon loolu te ñiy jàng même li mu at yi barse rek bac lañ am jàng juróomeet hmm. ñu ne loolu tamit war nañ ko saafara seetaat ko parce que tamit euh, yelloo te jubur ci yoo xam ñooy xëy benn bërëb bi def même liggéey bi hmm. kii am lu mu ëppalee moromam euh, boo demee ci gox gaa dañuy liggéey guddi ak bëccëg dimanche boole ci hmm. ñu ne indemnité de logement yelloo nañ ko parce que da toog ñu fëggal sa di la laaj kayit boo bind te indemnité logement tey def ñun ñu ngi koy def am nañu ko ci am ñun amuñu euh, ñu gis ne li gën a tax ñu génn. Mm-hmm. sunu kilifa dafa toogoon nag ba ñu toogee ba tey lépp mat ñaari at. kuréel bu ne recevoir na waxtaan ak yow ñun ñu bind ñaan audience benn yoon yeesal ko ñaareel yoon déggunu dara li gën a tax génn bi nag tamit borom mu mi dafa toogoon ci euh, bu muy wax ak askan wi. Mm-hmm. mu yëgle ni euh, sunu pàcc de wax dëgg yàlla liñ ñuy fay néew nañ ko xalaat saytul ko ba jox loo xam ni ay proposition mën a taxawee mën ko defar. mu defaat ko ci premier mais bi paase conseil de ministres mu àddu ne kon nañ taxaw defaral nu ba léegi waxtaan waxtaane tàmbali ñun mënuñ jee dëgg dagar mais lan lan nga foog lan nga jàpp ne moom la seen tutelle euh, moom la wala moom la téye ba tax na mënu leen mënu leen dalal ngeen waxtaan. a ah, xam nga dafa ñëw nuyoo si ci bureau yi loolu nuyoo administratif la waaye boo toogee fa ngay liggéey ay partenaires sociaux gi fi ngi ñu ne la am na benn conseil ne nekkoon waxtaan ak kuréel yi mais boo waxtaanee kuréel ñun syndicat lañu ñetti syndicat lañu ñu boole ci intersyndical. Mhm. mu toog waxtaan ak ñëpp waxtaan ak ñun. ci lañ gis ne kon war nañ yeesal sunu euh, audience ci moom. mu ci xelam ba xam ne lii moo tax mu ne moom toogul ak ñun mais dañ ne bu fekkee waxtu nag waxtaan ak ñun comme ni mu ko waxee. Mhm. ñaar yoon nit ki munoo waxtaan moom ñu joxe ndigal lu ci moom wan munoo ko waxtaanee moom ñun ñaan pour ñun daal ñu gis ne kon comme ñàkk weeg la ma waxaat baax li wax parce moom laa waxoon. Mhm. loolu ñu ne kon foog ñu jóg yëglu te defaral suñu bopp parce que tamit dëgg la mën nañ ko nangul nag mhm. li ñuy laaj leen ni moom moo koy defar directement mhm. mais dama ni boo yoree njaboot muy onk di jàmbat leen li àndal moom dem seefaral ka mhm. ñun dañoo meg da nga toog sa njaboot bu toogoon sa say doom kenn di onk nga seetaan ka bu génnee dee ci bi de buñ la laaja doom la wax dëgg la euh, monsieur Samb euh, sànq nga wax ko ci say biir wax mu mel ni ba ngeen njëkkee yëglu yëkkati seen kàddu dafa tombe woon jamonoy élection euh, uh-huh. ngeen bés mbir mi Covid bi ñëw ngeen tamit gën a noppi mais uh-huh. tey ngeen waat seen kàddu jamono ji nga xam ne ñoo ngi waajalaat yeneen élection nu mu fa demee noonu tombey waral ay gaaf. bii dafa tombewul sax. Ah. waaw dafa tombé bii du wàllu élection de duñ ko boole élection gox gaate jotoo ak syndicat. ah ñun politique nu utunu gox. d'accord mais dama ni bu fekkee dañoo toog ñun ñaam jàmbat bu fi taxaw. Hmm. kilifa gréew mi dem ba tudd ko joxoon ci duut baaraam ne lii nañ ko defar. Hmm. mu toog joxaat ndigal ñañu bokkoon dinaa nañ leen defaral ñoo ñoo ngay defar sax ñun defaragunu. Hmm. moo tax ñu dañuy yëglu dañuy yëglu bu ko defee ñu mën ñoo defaral ban ban noo fàtte parce que damay fàttali ci histoire ñun. 73. ba ñu soppalee njàngale mi. Mhm. jël ndute formation bi. Mhm. jëlee ko si ñaari at yóbbu ko si ñetti at ñun dañ fa fàtte ñu reclassé si hiérarchie c maanaam ku def brevet ak ñaari at ñu dund ko 76 73 76 ba 2000 ci jamonoy Abdoulaye lañ ko defar. Mhm. waaw donc ba tax na ko loolu mënuñ ko dund ñu presque fanweeri at. ñu dellu si fii ñu am yelleef yoo xam ñu koy laaj ñu ñuy tànqamlu bii nag bu buñ ci boole benn politique parce que xalaatuñ cee boole politique gannaaw borom réew mi moo toog ne nañ defar nañ waxtaan te diis ko leen loo xam mën nañ koy naan mu jàpp te seet nu mu ko defaree nan nu ko defaral. Mm-hmm. loolooy wax ji. Mm-hmm. naan nag bu fekkee boo bu fekkee dama laa yebal ne demal takkali ma soxna six heures ma oo la la fu fu ngeen toon ndax takk na nga naan ma toogat xaar <laughs> du ma jaaxle. d'accord. ah dama ko misaalal ci wolof rek. <laughs> tey ah, jaaxle boobu nag ga tax ñu yuuxu de. d'accord dañ ne dafa ne. Uh-huh. buñ lay laata rey danga nga yóbbu ñëpp xam ne ñu ngi lay yóbbu bëgg la rey. dëgg la ñun nag dañ dul xaar nag ñu rey ba dañuy yuuxu nag ñëpp déggunu dëgg la ku ñu war a fajal fajal nu. d'accord yéen tey euh, déposé ngeen préavis de grève kañ ngeen ko déposé déjà. ah juróom-ñeenti fan ci weeru novembre lañ ko déposé mu war a jeex ci juróom-ñeenti fan ci weeru décembre. donc le 9 décembre gi ñu dëgmal. bu jeexee te waxtaan amul di ngeen dem ci grève. a ah, loolu wér na wax nañ ko démb de dig nañ ko nag nee nañ leen nan nu oon waxtaan ñu seet nu saafara yi fii parce que préavis de grève nag loolu lay jëriñ charte bee ko tëral noonu da koy déposé yëgal ko kilifa ña ña a waxtaane wala ngeen waxtaan seetlu ngeen jubóo. Mm-hmm. ñun nag tànkam lu gi dafa doy. nan nu oo waxtaan. Mm-hmm. bu ñu waxtaanul ñun tamit nësër nañu plan ba nga xam ni ah ku yegg jeexal sa sa préavis de grève plan ba daal grève na ci topp. tey jii bu ngeen ci eggoon ban impact lay am grève boobu. ah soxna si ñun ñooy mandargaale jën mu wér. di jóge gox ak gox dem ci askan ñu mën ko lekk. Mhm. kayit yooyu ñoo koy defar mën nañ ko téye te boobaa jënd du dox. Euh, usines yaa ngi fi di employé ay mbooloo mu bëri ci Sénégal. Mhm. ami commande ñu koy yóbbu bitim réew. seen kayit yi ñoo koy mandaga ñoo koy jëmbal mën a dem bu taxawee du dem de. Mhm. waaye lépp luy ma information nga xam ni bataaxalu koom yi nga xam ni tey ci statistique ci wàllu koom. ba nga xam mooy jóge ci napp mi te ku ko amul doom planifié ci napp mi ANSD du ko soxla ku ne soxla ko sañ nañ koy téye de te boobu donc laa junj nag doon na xel borom lenn li du ko wax fii parce que kuy dem nga kuy xeexi doo weeri nga naaj. <laughs> yaa koy wax sànq euh, napp gi foo laal day métti fépp ay métti daanaka ndax tey jii mën nañoo euh, xaar wala gis ne seen grève bi bés bu demee ba ngeen wax koo amal dina gën a yaatu yeneen secteurs yi fekk si leen ci. déedéet madame. Hmm. xumtu gi dafa rëy ñun ñoo mujjee xumtu. maanaam xultu bi dafa rëy ñun ñoo ko mujjee. Mhm. barki de boo njaay lañ célébré journée mondiale la pêche. Mhm. boo demee cees madéré fa daje woon ñàkkum jël lañ doon wax di nga doxalinu euh, tamit nuñ nuñ tey nuñ ñàkkum jël nuñ tey secteur bi. Mhm. am lu leen naqari. soppikatu jën yi ñoo ngi woon pencum Sénégal ca am lu leen naqari ñu koy wax. talaata ñun ñu toog yëglu ci liñ ci liñ ne. moo tax nga ne la foolaal day métti wax nga dëgg. kon ba tax na bu ñu fexe mukk mukk ba yi kuréel ñett yi yëpp jëmmalu ci biir napp mi fépp déedéet ñun ay gestionnaire la ressource ay technicien lañ bokk ci ndawali état dama ni li ñuy laaj bariwut motul juróom-ñetti fukki euh, junni million hmm. maanaam su ma waxee li ñu li ñuy laaj ñun ci sunu lim hmm. bu ñu koy fay weer wu ne motul quatre-vingts millions at mi motul milliard yomb na yomb na état. d'accord. nan nu defaral defe naa loolu moo gën ñu yegg fa nga xam ni parce que tey buñ ne koom-koomu napp mi li muy dugal ci senegal mhm. moo fi gën a rëy ci PIB bokk na ci pàcc bu mag na xam ni kon secteur bu am solo bu ñu soofantal. d'accord bu ñu soofantal bu ñu bu ñu yóbbu ñu yegg fenn fii wax dëgg dañ di góor rek lu ëpp fanweeri at lii dañ ko noppiwaale tey la tey la jëm ku ne di ko mën dégg. Euh, ba ngeen yëgloog léegi ndax euh, moom mi euh, di seen tutelle yëngatu na euh, woo leen ci waxtaan wala. ah ñun de démb lañ yëngu. ki fi ne nii de moom ba mu ñëwee ba tey toogul ak ñun démb yëngu. ah, ah waaw bu leen déggee war naa mën a xanaa. déedéet xam nga doon nay neex tey mun nañu lal kaay la ñu wax a ah, yëgandi naa ni moo nga jëm ci benn tele dañuy teewlu ba dégg ba xam lu mu fay wax xëy ñu tontu. wala xëy na dafay wax loo xam mooy defar pour ñun bu nu fa diggee tam jël waaye tey gis nga fi ne nii. Hmm. dañuy sante yàlla ci gannaaw président de la république moo nangu nekkoon dafa bëgg ñu jëmmal benn conseil présidentiel ci wàllu napp mi. moom moo ngay bëgg a yàgg di conseil ah, googu weeru me ba tey. weeru mai ba tey moo tax gannaaw yàgg na ñun dañuy yëglu. d'accord sunu mbébét fa la nekk ñu ngay jéem a defaral bosu ñeneen dañuy yëglu ñu defaral nu te ànd ñu ànd ak ñooñu te pare ci. Hmm. waaw conseil ba li ma su sañoon ñun suñu bos du ci bokk sax parce que euh, napp mi globalement la ñuy defaral ñun ay fonctionnaire lan mais nag comme dañ ne napp mi leen waxtaan suñu bos def ci ay bokk d'accord la ñuy bébét nag ñu ngi koy defalal ñeneen dama ni nan nu ci boole te jàmm ne ñooy. jërëjëf sëñ bi euh, Chérif Samb ngay coordonnateur euh, cellule communication bu intersyndicale liggéeykatu pêche ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf soxna si wax dëgg yàlla dañoo rafle woon fu ñuy waxee waaye xalal ngeen yoon bu ñu waxee tam alhamdulilah jërëjëf